Ibrahima Sané. moom ci commission communication marketing ak relations euh, tey ma gis ngeen ñëw ci école bi def benn initiative boo xam ne dafa am solo lool euh, di def nettoyage ci école bi lan moo leen poussé ngeen def loolu. en fait dañu seetlu ne tout le temps ASC yi si sur le plan footballistique rek dañuy focaliser wu te ci ASC yi am na développement. côté aspect éducation yooyu yëpp muy bëgg changer les paradigmes créer un déclic pour ñu permettre que ASC yi ñu insérer bu baax ci développement ak ci yeneen activités quoi surtout environnement ak cadre de vie. Euh, objectif bi tay lan ngeen ci dem mu nek lo xam ne day euh, tasaaroo ci géejuwaay gi yëpp wala. en fait li ñu si njëkk a wax objectif bu njëkk bi moy il faut que ASC yëpp ñu yeewu ñu xam ne seen bopp ASC yi amaluñu njëriñ quartier bi au contraire quartier bi mo leen amul njëriñ rek quartier bi mooy def si ñoom mais il faut que ñoom ñu changer leen doon que ASC ñu dugg ci développement dugg ci yeneen activités yi pour ñëpp mën koo gis ñu mën a dugg ci école yi dugg ci projet yi yooyu yëpp pour mën a investir mën a dimbaliwaat gox yi nga xam ne fa lañ nekk. Hmm. ma gis tey euh, ci biir euh, ànd bi ngeen ànd bokk jom mais dama ci gis GFC feeñ lan moo ko waral. waaw il faut que nit ñi ñu xam leen ni léegi ñu xam ne football luy fédéral la nekkatul luy jaxase te GFC moo nekk loo xam ne benn symbole boo xam ne.

la ñu bu baax tàmbale ko ci président bi Jamil ba ci suuf ak président des supporters ak gars yi fi nekk yëpp ñu la ñu bu baax a baax. Mhm. Euh, ma gis aussi loo xam ne wax ko ko léegi léegi mu nekk tey ngeen def ko ci école lan moo tax ngeen taamu école. waaw dañoo xam ne euh, lu ci bari dama dañ discuter avec les communes ñu gis ne communes yi ñooy joxe ay subventions te ñu ngi koy jox ay yi mais au retour ASC yi amuluñu dara njariñ commune ñun ñun ren ren ñu bëgg a créer benn déclic.

wala ASC bi lan mooy njariñam ci biir askan bi moo tax ñu indi violence mais violence moom lu ñuy dàq la loo xam ne fu mu mënti nekk ñu def lu baax day yàq rek kon ñu ngi woo ñëpp si non violence mooy ASC yi mooy politiciens yi ku mu mënti doon ñu ngi lay woo si non violence euh, léegi dernier mot bu ma bëgg laaj mooy tey ban appel ngay def ci jeunesse su Géejawaay en tant que si initiative bi ngeen jël nii lu ngeen ci woo ci ASC yi waaw dañuy wax tout d'abord que ASC yëpp nañuy def nii

bokkaat dem jàpp ci GFCG Mangage kenn ku ne ñu ngi ci woowaat ci affaire boobu nga jàpp non ba du ma tëj il faut que benn question ndax yaa ko fi dugal mhm. GFC bi nga wax tey actuellement lan ngay wax ci loolu yow tant que doomu Géejawaay leen am man euh, du ma autorité boo xam ne ci biir GFC war naa mën a wax mais maa ngi wax dara en tant que citoyen en tant que doomu Géejawaay moo tax ma laaj la ko bëgg gi GFC lan ngay wax ci loolu li may wax dara mooy lii si xawoon yeneen yeneen commune wala mu xaw ci yeneen département yi du demee nii waa population Géejawaay ñoo benn ñàkk fayda bi ñoom la bëgg a dab te waruñu lii patrimoine Géejawaay yëpp la te lii xew nii dafa ruslu te du ay tegge ñun leen respecté wul mais ñun ñoom ñoo war a respecté suñu bopp population Géejawaay moom jóg taxaw fexe ba li nga xam ne moom la ñuy waat taas war ko joxe lu mu mën ci demee lu mu mën lu gën nag moo ñu joxe verdict bu jëm suñu mais leneen lu mu mën ci doon na ñëpp génn ci mbedd mi na ñëpp génn ñu def non violence ba pare marche ba ñëpp xam ne lii de la ok merci.